bureau assemblée nationale ni ki suba ci àllarba ji danañu dajee ci ab réunion yéenekaay gi nee na Ousmane Sonko li mu xam le nee bu ko kenn toogal ci fi nga xam ne mooy commission ad hoc bi waaye nag ñi nga xamante ni ñooy waa PDS maam député Cheikh Bara Dolly Mbacké moom nag nee daal du jóge benn yoon ci commission ad hoc bi ndax chaise vide lay bañ dafa bëgg a des ci commission ad bi xeexal Ousmane Sonko yéenekaay gi nee gi de la bi daan nañuy xaajaloo ci lu jëm moom dindi immunité parlementaire Ousmane Sonko yéen a kaay gi di source nee na bureau assemblée nationale def nañu seenu rapport suba danañu dajee laas yéen a kaay nee ñi nga xamante nag ñooy patriotes yi maanaam ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti Pastef jamono ji ñoo ngi waajal résistance maanaam defante jamono ji ñoom nee ñu daal bëgg ñu mbir mi mu sedd benn yoon yéen a gi di réew mi quotidien xëy diñu xibaara naan ñu Birame Souleye Diop Abbas Fall Fatima Mbeng Bawar Thiam Dahiru dossier bi jébbal na ko doyen des juges tey jii danañu leen déglu waaye nag li nga xam ne moom la procureur sàkko nee na Birame Souleye Diop nañu ko mandat dépôt Dayru Thiam nañu ko mandat dépôt ñi si des ñu daal leen di def contrôle judiciaire yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na jamono ji jàpp gi ci réew mi ma ngi mel ni tulleeg màlle Assane Diouf teg nañu ko loxo Guy Marius Sagna teg nañu ko loxo yéen gi de la sa mu ñu xamal laan ñu niki démb ñi a kaay gi nee am benn dafa fuité maanaam dafa rëcc Clédor Sène moo sa yëkkatay kàddu wax ne nañu génn ci mbedd mi bi nag nee na ñii daal wàllum insurrection leen di bëgg a toppee yéen a kaay gii di Walf Fadjri nee na en nga xam ne moo am ci réewum Sénégal ndar moo xam ne da nga naa da a yokk démocratie bi ba pare bañ ab opposition am fa journal bi nee na loolee doy na waar yéen a kaay gii di La nee na nag Ousmane ko fi mooy ci abattoir bi boo xam ne ñu bëri Adji Sarr mi nga xam ne moo waral coow lu bëri ci réew mi aj Sarr fan la nekk yéen kaay gi nee na am na ñenn ñoo xam ne nee nañu ko gis nañu ko Gàmbi ci benn hôtel ñenn ñi ne dafa jaar Gàmbi doon dem Guinée Bissau ma ngi ci journal bii di L'As yéen kaay gii di Les Échos nee na nag kuréel gi nga xam ne moo ëmb avocat yu ñoom nag jubbanti nañu maanaam avocat yi ànd ak Ousmane Sonko ak avocat yi nga xam ne ñoo ànd ak Adji Sarr yéen kaay gii di réew mi quotidien bàyyi mbirum Ousmane Sonko ak mbiri Adji Sarr wax ci coronavirus bi ak ñàkk yi nga xamante ni tey jii dina door yéen kaay gi nee na comité de suivi ni ki ñu koy taxawal yéen a kaay gi di Sud Quotidien ñi nga xam ne ñooy médecins yi ñooy njëkk a ñàkk yéen a kaay gi di Dakar Times wax ci lu jëm ci wàllum coronavirus gi ak vaccin yi nee na lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci ay réew ci déndu Afrique ñoom nag ñoo ngi commencé vaccin bii di Sinopharm maanaam mooy bi ñëw Sénégal yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na am na benn lu bu yees boo xam ne daan nañu koy taxawal ni ki démb ci a kaay gi nee na loi boobee dafa jëm ci partenariat public privé journal ne ma ngi a gi de La Tribune nee ne ñooy